Sénégal am na ay kuréel yuy xeex immigration clandestine benn gis nañ Sénégal signé ay convention yu bëri ak dëkk yoo xam ne dañ fiy dugal xaalis pour def ay projet xeex immigration clandestine mais jusqu'à maintenant gisuñu ba léegi booy bàyyi est-ce que tam Boubacar Seye xam nga jàppoon nañ loolu. bu dugal nañ ko mais itam est-ce que loolu jërut aussi ñu def ab enquête sur la alal ji ñuy dugal si réew mi ngir xeex immigration clandestine te mën a jeex aussi loolu. non euh, non dëgg la et au-delà je rejoins gis nga. Mhm. rien que OIM e agence des Nations Unies pour la migration xaw ma lan suñ la waxoon budget li nga xamante ne ci bureaucratie lay dem ak li nga xamante ne dëgg-dëgg dañ koy dugal ci lutte bi da ngay xam ni gars yi dañuy wax rek mais bëgguñ phénomène yoy noonu dëgg-dëgg du moom la ñuy xeex et c'est vrai que Sénégal signé nag Espagne ay convention mm. signé na ko peut-être ak Italie signé le ko peut-être ak France mm. signé na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais pour man euh, parler de migration d'abord il faut il faut ñu indi ñaari yëf mooy le problème de la migration la liberté des gens à aller vers d'autres lieux pour uti fa lu leen neex xam nga lu mu la et phénomène boobu suñ koy wax nañ fàttali ne au-delà des religions tubaab yi ñoom ñoo ko njëkkee tubaab yi ñoo njëkk bàyyi seen dëkk yi ñëw suñ dëkk yi di fi jël nit yi di yóbbu di jël ressources yi di yóbbu après di def lu leen neex ci àdduna bi def ko Afrique def ko Amérique Amérique donc phénomène bobu phénomène bu naturel la bo xamante nit am euh, peut-être cette vocation là à aller chercher autre chose ailleurs par contre maintenant clandestinité bi ak rêve bi nga xamante mom lañuy poursuivre je suis d'accord avec Bachir quand il dit que ce n'est pas fondamentalement un problème de pauvreté c'est un problème de rêve parce que pauvreté suñ koy wax moy ko xamante limi dundé mënu ko am voilà amul sax lu mu dundé ñaata lay am par par jour après ñu dem euh, par exemple euh, banque mondiale wala yoy naka nañ définir 2 dollars par jour wala yoy parce que quelqu'un qui met sur la table 500 000 750 000 1 million pour, préparer son voyage mais ma foi c'est ko xamantene le mi ngi liggéey di épargner di di di épargner donc la question fondamentale moy d'abord rêve bi nga xamantene mom en Europe d'abord est-ce que ce rêve il est réel s'il était réel est-ce qu'il l'est toujours Bah pareil, est-ce que pourquoi on ne peut pas faire de ce pays-là de nos pays africains et de la sous-région un rêve Le nonou, politique il interpellé. interpellé. Mm-hmm. et c'est vrai que au premier chef desquels le régime en place mm-hmm. le phénomène des migrations clandestines mi commencé du temps d'Abidjouf, déjà Nous plus loin mais du temps d'Abidjouf, déjà les premiers bateaux partaient à un certain moment il accentué wu ba Macky Sall donc c'est trans régime. Mhm. c'est trans régime. Mhm. mais par contre beneen échec bi ci nous sommes à six mois des élections c'est que deug deug nit tamit politiciens yi wax il pas à vendre du rêve à ces jeunes là ko xamantene japp jàpp nga ni am nga candidat japp nga ni fii ak 6 mois mën na falu mais so gëmee ni su ñëwee sa soxla faju wala sa rêve voilà si si il a dit au moins en tant qu'homme politique il a eu le courage de dire à ces gens-là restez on va bâtir le Sénégal ensemble et que fi mën na daax fi ngeen dem les autres ne l'ont pas fait mais en tout état de cause ñi dem japp nañ ni le rêve il est ailleurs qu'au Sénégal nak da fay nek échec global des hommes politiques échec global des hommes politiques ba nga xamante ne jeunesse bi peut-être quelque part dafa dafa dafa dafa am décalage entre hommes politiques yi li ñuy dund ak ñoom li nga xamante ne loolu la ñuy dund wala loolu la ñu bëgg mais autre chose encore dëgg ou pas dëgg d'abord démb rek maa ngi dégg ñi ñuy wax naan yegg nañ ci gaal yi lañ jaar. ñi ñee ngi dem ñi ngi yegg et Sénégal dégg ngi dem si parce que non maa ko def direct tey sànq sànq. cinq ay 16h benn TikTok live TikTok. Hmm. gaal boo xamante ne ñi ngi dem. ñuy def avec beaucoup d'enthousiasme soo def sago doo <laughs> sous-vêtement nekk ci géej gi taxaw ñoom ñëpp di wax. di dem ça veut dire que ñun au moment où on compte nos morts au moment où on fait le deuil de nos morts. Hmm. am na ñoo xamante ne ñoom loolu du dara ci ñoom. le rêve est toujours le plus fort.